ba tey rek ci xëtam gu njëkk ci leeral point net ñu àddu ci leneen li nga xamante rek daal mooy mbirub crédit mutuel du Sénégal gannaaw rek ay liggéeykat yi nga xamante ne dañuy dem rek li nga xamante ne mooy grève grève de trois jours renouvelable à partir de demain gannaaw rek daal gi ñu daal di xam ne dañuy dem li nga xamante ne mooy grève ñu fay le 28 ak le 29 janvier gi ñu nekk ab grève gi nga xamante rek daal mën nañ ko dàbbaliwaat loolu rek daal lañ daal di xamal agent yi nga xamante ne dañuy liggéey ci crédit mutuel du Sénégal ñoo daal di exiger ni ni mel ngir rek daal bëgg ñu publier li nga xamante ne mooy rapport de la commission bancaire googa gannaaw rek daal gi ñu bëggee itamit li nga xamante ne mooy yenn organisation syndicats yi ñu daal di toogal ñu daal di xamle rek daal ni ni mel dalee daal di metti lool ba tax na rek dañuy dem ci ab grève gi nga xamante ne amul àpp yi ñu daal di ko tàmbali ak suba rek daal ba le 29 euh, janvier 2022 gi ñu nekk ca loola itamit ñuy daal di fàttali ñoom it itamit dañoo daal di bëgg rek daal li nga xamante ne mooy démission ki nga xamante rek daal mooy directeur général euh, bi nga xamante ne rek daal mu ngi wuyoo ci turu Amadou euh, Jean Jacques moom nag daal la ñu bëgg rek daal mu daal di démissionné ca loola ci ab crise gi nga xamante ne liyee na ca koo xamante rek daal dangaa daal di taq ca mbir ma ñu daal di bëgg rek daal nga daal di abal leen ci loola rek daal dañuy daal di amal ab grève dès demain le 27 le 28 ak le 29 gii ñu nekk.